ayca Ama Diop nuyool ñu tàmbali ñu tàmbali waxtaan bi nuyool. waaw maa nuyu ñëpp di nuyu gars yëpp di nuyu Bamba Faye sama waay la. di ko moo tëgg laamañ mais na ma jàppale moom daf maa war a jëndal ay ticket ba Faye si boppam. waaw maa gërëm ñëpp di gërëm waa yëmbal fu ma jugee cadre base firi laay suñu waa dëkk Morala ñëpp maa leen di sant di gërëm Fallou Diop mii. waaw may na ma léegi xaas bu bëri ak ah. weeru gumbaan bi <laughs> billaay xaas bëri la ma may léegi la ma ko envoyé envoyé ah, doo si jot parce que bee fay waaw maa ngi ñaanal ñëpp jàmm waaw di nuyu suñu chef yi ñii amuñu seen fay police yi ñii ñii dañ leen war ñaanal ñun même bu ñuy dóor sax ñun bëgg nañ ah. parce que ñun waat ñun dañ leen a war ñun bu du ñii ñoom ñun duñ bëree ñii buñ fi nekkul woon kon làmb du fi am. kon làmbaay ñaaw. waaw kon ñu ngi leen ñoom ñëpp. waaye loolu waaye a gërëm billaa suñ leen ñun buñ ñu dóoree nañ muñ. Ah. xam ni ñoom dañuy teg si yoon. waaw dóori bu méttee ñu muñ. Ah. arène bee ko gën a métti. Ah. waaw lii fi sam na soro peer ngeen wàññi dóor yi. waaw ñu ngi leen di sant. mais léegi looy yóbbante sa adversaire. kooku aw ma la ma koy wax màggee fan nga teg ni yax yee billaa daa màggee yow koo amul bëñ. moom fonde rek lay naan <laughs> waaw sa waay nag kii moo ma tooñ ma taar kii sama ménager la moo ma tooñ bon boo may jox danga may jox ku am bëñ waa ji ñëw na fii keroog bëñ yi yëpp a deñ ah ruy lay naan man kuy raay naan ruy dina ma daan ah. waaw yàlla dëgg mooy ñëw mu daan ma mais su dee bëri rek fii ba suba mënu ma daan yàlla dëgg mooy ñëw ñëw mu daan ma nit mën nga ko mu daan la mën naa ko mu daan ma hmm. waaw yàlla na ma yàlla may ndam loolu hmm. maa lay gërëm kii maa ngi koy gërëm may na ma xaalis dinaa la gërëm ñëpp dinañ ko yëg waaw man ku ma may ñëpp dinañ ko yëg danga changé sa vie open presse bi la set la maa si woo ñëpp open la set la waaw maa si woo ñëpp maire may naa la téeméer may naa la téeméer sama xol yeegu si dama lay wax rek waaw maa ñaanal ñëpp jàmm yaado comme li booy pir wax yaado yaado feebar mm. suñu nit la waaw da doon da doon bégal nit kon gars war nañ si mën a jàpp ñoo bokk koñ waaw dañ koy ñaanal wér ak tane waa joomul kenn mm. billaay ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñun wuñ ko kenn lu bon su dëkkul woon suñ koñ tamit ñun sénégalais yi ñun fii kenn bonul mm-hmm. waaw ñun ñëpp benn lañ ku feebar dañoo war a jug jàppale ko maa ngi si woo ñëpp di wax ñu jàppale ko di wax waali na ma jàppale waali seek ah. man sama mag moo koy dawalal moom waruma jàppale su ma jàppalu daa soxor billaay ma dama ko koy wax mu koy dégg Babacar noo kii noo aw ma fayam moom moo ma jëndal tigé waaw may na ma benn bolow ticket maa ngi koy ñaanal jàmm beneen bolow bi des na na ko gaa jënd abaa dina dina añi sa waay jox na ma mais lu ma jox matul <laughs> matul añ après abaa su ko mottalee ma togg bu ko mottaluwul nag wasalaam ah. waaw maa ngi gërëm ñëpp mais li la lii sa yoon nekku si lijjanti sa bopp bul toj samay gàllaaj noppi naa waaw maa ngi ñaanal jëpp kii Babacar l'international maa lay woo si combat bi Sali jëlal ma lii Babacar noo waaw sëriñ bi ñëw na wala ñëwul ban sëriñ fi nga bàyyi kii la wax bi la defaloon naanaa bi sëriñ daa am fii bi la defaloon naanaa bi waaw lii signature la na ba ba jour ba sa waay bu ma tojal <laughs> bu ma toojal <laughs> Babacar Babacar non Séré Aïssa maa ngi koy woo Séré Aïssa balaa ko maa lay woo si combat bi nga jàpp si lamb ji seen lamb la hélas maa ngi lay woo si combat bi autorité yëpp maa leen di woo ku ma jàppale baax ku ma jàppalu ma dem waaw waa yëmbal nañ ma jàppale daan daan du force dama leen koy ñuy dégg ah. man yorelu ma victoire buñ ma jàppalee ma daan buñ ma jàppalu nag lu am ñoo xam loolu la. jërëjëf waaw maa ngi ñëpp jàpp Maama ñu tàmbali ñu tàmbali waxtaan bi nuyool. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu gars yi di nuyu Bamba Faye sama waay la. di ko wax moo tëgg laamañ mais dama jàppale moom daf maa war a jëndal ay ticket Bamba Faye si boppam. waaw maa gërëm ñëpp di gërëm waa yëmbal fu ma jugee cadre base firi laay suñu waa dëkk Morala ñëpp maa leen di di gërëm Fallou Diop mii waaw may na ma léegi xaar bu bëri ak ah. weeru gumbaan bi <laughs> billaay xaar bëri la ma may léegi la ma ko envoyé doo si jot parce que instant yi téléphone bee fay. waaw maa ñaanal ñëpp jàmm. waaw di nuyu si chef yi ñii amuñu seen fay. waaw police police yi ñii ñii dañ leen a war a ñaanal ñun même bu ñuy dóor sax ñun bëgg nañ. Ah. que ñun waat ñun dañ a a respecté ñun bu du ñii du woon ñoom ñun duñ bëre. ñii buñ fi nekkul woon kon làmb du fi am. kon kon ñu ngi ñaanal ñoom ñëpp. waay tàccu leen waay wallaay ñii dañ leen a war a billaay suñ leen ñun buñ ñu dóoree nañ muñ Ah. xam ni ñoom dañuy teg si yoon waaw dóori bu mettee ñu muñ ah. arène bee ko gën a mett ah. waaw lii sam na soro peer ngeen wàññi dóor yi waaw ñu ngi leen di sant mais léegi loo yóbbante sa adversaire kooku aw ma la ma koy wax màggee koo yax yee fëna fan nga teg yow koo amul bëñ ah moom fonde rek lay naan <laughs> waaw sawaay nag kii moo ma tooñ Matar Matar Ndiaye kii sama la moo ma tooñ bon boo may jox danga may jox ku am bëñ waa ji ñëw na fii keroog ba ñuy yëpp a deñ xanaa ruy lay naan man kuy raay naan ruy dina ma daan ah. waaw yàlla dëgg mooy ñëw mu daan ma mais su dee bëri rek fii ba suba mënu ma daan yàlla dëgg mooy ñëw ñëw mu daan ma nit mën nga ko mën mu daan la mën naa ko mën mu daan ma hmm. waaw mais yal na ma yàlla may ndam loolu laay ñaan hmm. maa lay gërëm kii maa ngi koy gërëm may na ma xaalis dinaa la gërëm ñëpp dinañ ko yëg waa man ku ma may ñëpp dinañ ko yëg sans sa vie open presse bi la open bi la set la maa si woo ñëpp. open la set la. la set la maa si woo ñëpp. maire may naa la téeméer may naa la téeméer sama xol yeegu si dama wax rek waaw maa ñaanal ñëpp jàmm. yaado comme li booy piir wax. yaado yaado dafa feebar suñu nit la. waa da doon da doon bégal nit ñi. kon gaay war nañ si mën a jàpp. ñoo mm-hmm. bokk koñ. waaw dañ koy ñaanal wér ak tane. waaw joomul kenn. Mm. billaay ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñun yéene wuñ ko lu bon su dëkkul woon suñ koñ tamit. ñun sénégalais yi ñun fii kenn bonul waaw ñun ñëpp benn lañ ku feebar dañoo war a jug jàppale ko maa ngi si woo ñëpp di waa ñu jàppale ko di waa waali na ma jàppale waali seek ah. man sama mag moo koy dawalal moom waruma jàppale su ma jàppalu daa soxor billaay ma la ma ko koy mu koy dégg Babacar noo kii noo karintoon aw ma fayam moom moo ma jëndal ticket waaw may na ma benn bolow ticket maa ngi koy ñaanal jàmm beneen bolow ticket bi des na na ko gaa jënd abaa dina dina dina togg sa waay jox ma mais lu ma jox matul matul añ après abaa su ko mottalee ma togg bu ko mottaluwul nag wasalaam ah. waaw maa ngi gërëm ñëpp mais la loolal la lii sa yoon nekku si lijjanti sa bopp bul toj samay gàllaaj noppi naa waaw maa ngi ñaanal ñëpp lentor national maa ngi lay woo si combat bi sali jëlal ma lii Babacar noo sëriñ bi ñëw na wala ñëwul ban sëriñ tournel fi nga ban sëriñ la wax sëriñ bi la defaloon naanaa am fi bi la defaloon naanaa bi lii signature la na ba ba jour ba ndax moo lay indi ça va bu ma tojal <laughs> bu ma tojal <laughs> Babacar maa ngi koy woo séeré Aïssa balaa ko maa lay woo si combat bi nga jàpp si lamb ji seen lamb la hélas maa ngi lay woo si combat bi autorité yëpp maa leen woo ku ma jàppale baax ku ma jàppalu ma dem. waaw waa yëmbal nañ ma jàppale. daan du force dama leen ko waxee ñuy dégg <laughs> man yorelu ma kenn victoire. buñ ma jàppalee ma daan buñ ma jàppalu nag lu am ñoo xam loolu. jërëjëf waaw maa ngi ñaanal ñëpp jàpp. mais naanagu si. waaw yow keroo yi ma joxoon daa xor mbet nag de yooyu defaroo ko de. <laughs> waaw naa ñam yi su ma ko ñemee dinaa xam ab waaw naa si waaw après nga jox ma ñaar yi